ku jongama tax a ñaaw ci kaw suuf loo yàgg-yàgg ci kaw suuf di nga dee jongama root ñu sànge la ko suul la des na la suul ba mu amee at jongama juddu sa ginnaaw kon jëru ko te borom kër bu ne juróomi cër ngi ci yow cër bu ci ne borom a ngi koy xaar dina jot sa malaakaa ngi xaar sa ruu dina jot sa bàmmeel a ngi xaar sa jëmm dina jot ay sax a ngi xaar sa yaram daan ci jot say doom a nga xaar sa desu alal daan ci jot nga am cër ca jeeg ja ngay ñu ngi toog di ko xaar daan jot borom kër bu ne borom kër bu faatoo ci kër lu jooyee bari bari ci kër gi kenn fa jooyal yàlla yeneen nag wax ay nan kenn fay jooyal yàlla kay kenn xumu doom ji rek kay yàlla fekk ko ci waaw doom ji rek kay jooy yàlla fekk ko wii nu may def yàlla ni ko ni ma rek mhm. jabar ji moom la muy yuuxoo yàlla na fa gëj Hmm. wuy fuma ma jëm wuy fu ma jëm moom bu tee njee ba sumi keneen tàkk ko am na fu mu jëm waxatu see wax wuy fu ma jëm la doon wax am na fu mu jëm faaliitu bu tee njee ba sumi bisu ci mité booba ganeen góoree duggaat ca néeg daat lalam jonga guddi gu ciit lañ ko guddi gu ciit lañ ko guddi gu ciit lañ ko borom kër goga nak puru fanan fudu aljana du na ak dundam ndaw so se tenji ji sumi tiji armoire bopam ba fek ci riyam ca dencen sol fek ca takaylam ca dencion tak jakar lok setu bare fàtte ni armoire bi mo ci dencen yere yi su ko ci non du ko ci fek momit it ni na dañu ko fatong tabal ko ci armel lum ci dencu du ko ci fek kon armoire armel ci lan la muxtar sek ne rere wata bor lal Abder julli ci ge sumi ko fanan ak jabaré dono ñu nodd fajar ci jàkka ci sap tank jaru ko boo dee mbërit doo waata <laughs> këm yeey moo tax mu ne addinam néeg la ku ci tabbi teju di nga tijju ñu gis la wala ñu ubbi ko yer la jamono nak moy dekk ci yag loko gis lel bari ko wax xamal na lu kopp mbaamu deegal la ko da ko caa nit ku nek nak bu na dama andi say bañ bu sa saw dal di ko wari jëru ko duggal ca ña nga daan defal lu baax ca la say bànc ne ndax ñoo la konte kon ñoo lay kontar coup de temps nag ki xam sa temps loo yafal ba mu suur ci jamono bii mën nga koo rendi yàpp ko wala nga war ko ba mu des nit ah. ba mu des nit nit li ci ëpp ci doomu aadama yi koo yafal ba mu suur balaa suuru kenn suuru kon ñi daan gunge tooqe wuñ dañuy def koo gunge mu doxe fa <laughs> borom alal yi bari soxor yi lan leen daan bañ amagu dara lañ fàttewu soo leen bëgg a jot si yeneen vidéo yi di abonné chaîne Contre Résistance activé notification yi abonné activé